dal leen ak jàmm ñu ànd xëyër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo xalam demoon na bay neex buum nga daal di dok diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall ñoom ñaar nag ginnaaw ak piicoog mbaalo gu yàgg-yàgg goo xam ne doxoon na seen diggante ginnaaw bi ñu juboo nag ca Masalikul Jinaan ñu bare bare mbir moome nag rafetlu woon nañu ko waaye nag dafa mel ni cat moo sa daal di dugg yéenekaay gi di réew mi Quotidien ne nag Macky Sall ci boppam est-ce que maanaam dëbbul li ki nga xam ne mooy Abdoulaye Wade maanaam joxoon ko ay garantie yu wér ne nag li nga xam ne mooy juboo bi retrouvaille bi lu dëggu la ci mën a ba Abdoulaye Wade soobu ca mbir ma Macky Sall nag daal di koy njuuj njaac journal bi di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu en tout cas gisante Abdoulaye Wade ak Macky Sall ca na Jinaan bës bi bëri woon na loola waaye nag Abdoulaye Wade fa mel ni ñi nga xam ne ñooy médiateurs yi joxoon nañ ko ay garantie ak ki nga xam ne mooy xalif général des Mourides waaye nag jamono jii daal li nga xam ne moom lañ gis diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall njaw ba léegi ni ma ngay wéy di desu xam bi na ginnaaw nag sortie bi nga xam ne Doudou Wade def na ko ci RFM loole nag dafay firndeel ne Abdoulaye Wade ak Macky Sall ba léegi ni nag munu ñoo jaaroo ab taal ndax gi naw ñoom ñaar nag maanaam ba ñu juboo sa masaalikul jinaan ñu bari njorto na ne du yàgg dara mbiri Karim Wade ñu daal di koy lijjanti waaye nag doomu Abdoulaye Wade bi tey jii la gën a tàgga témbe ca fa nga xamante ni nag mooy ca bitim réewa journal bi nag mu ñu xamal nañu en tout cas li am ba des dala mooy Macky Sall ci boppam jëloon na engagement dem nag seeti Abdoulaye Wade ca këram mbaadu nag Macky Sall dafa ñàkk respecté loolee nga xamante ni nag ay engagement la woon yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy ci train régional bi ndax nag train express régional bi gouvernement bi ak opposition bi déggoowuñu si benn yoona journal bi nee na lu jëm ci li nga xam ne ay koppar la ñu dugal ko nag ci train express régional bi bu kii na Dakar ga kii na guy gi ndax ñi nga xamante ni ñoo nekk ci gouvernement bi ñoom bu njëkk dañoo waxoon ne lu toll si juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett ci ay milliards la ñu si daal di def ba mu neex na gouvernement bi génnaat daal di wax ne juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróom benn milliards la ñu def ci li nga xam mooy train express régional bi journal bi nee na loolee nag kàddu yi waa gouvernement bi la waaye nag Ousmane Sonko da leen a daal di weddi nee na lu toll si junni ak ñetti téeméer ci ay milliards la ñu si daal di def journal bi di Sud Quotidien mu ñu xamal lan ñu lu jëm nag ci date bi nga xamante ni moom lañ koy livré loolee tamit gouvernement bi ñoom seen biir maanaam wax nañu si wax yu bare bare yoo xamante ni daal dafay juyaloo teg si wax ja nag amul leneen li nag mooy njariñ li tamit dañu siy juyaloo opposition bi ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi journal bi mu ñu xamal lan ñu en tout cas li nga xam ne mu am ba def ci train express régional nañu bare bari ay jafe rawatina ñi nga xam ne dëkk Fass Mbaw route de Bouna Kër Massar Yëmbal Caaroya ak yeneen gox yu bare bari yoo xamante ni jamono ji maanaam ñoom doyal nañu sëkk sëkk sëkk ci li nga xam ne mooy train express régional bi surnal bi di Grand Place mu ñu xamal lañu waa ñàgga ñaaw ñoom nag mere nañu lool ki nga xam ne maanaam mooy Babacar Ngom Sedima ndax jëf ju ñaaw ji nga xam ne ñoom nee nañ moom la leen daal di tekk ndax seen suuf ci boppam la daal di aakimoo journal bi mu ñu xamal na ñu béykat yi nekk sa ñaga njaaw jamono ji amatuñu benn suuf boo xamante ni moom la ñuy béyee ndax lu toll si ñetti téeméeri hectare la Babacar Ngom Sedima daa di ngar dajoo loole nag moo tax askan wa mer ba futu di ka daa di ñaawlu journal bi di Vox Populi ak réew mi quotidien mu xëy nag dikkal ñu ci nag benn algérien boo xam ne dañu ko daa di teg loxo ca aéroport international Blaise Diagne algérien boobe nag dafa yoroon lu toll ci téeméer ak fanweer ak benn ci ay seko ñu daa di koy teg loxo seko yooyu nag ci benn valise la ko dugaloon te nag seko ci boppam moo bëri coow ci noonu nag si lañ ko teg loxo ba ñu ko laajee la mu xamle nee na seko yi benn bu nekk nag ñaari junni la ko jëndee te nag bu ko yóbbee Algérie dana ko jaay lu toll ci weer ci ay junni yéen kaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xam laan ñu upp nag neexul ba neexul waaye nag moo baax ci lax bu tàng ginnaaw nappkat yi nga xamante ni nag maanaam andi woon nañ fitna ju rëy fi nga xam ne maanaam mooy ca Ndar ja Gendar daan nañ leen di jox nag lu toll si ñeenti téeméer ci ci ay licence de pêche la nga moo leen naqare woon seen licence de pêche jamono ji nag Sud Quotidien nee na jàmm nee na ñooy yéen a kaay gii di Vox Populi xëy daal ñu yóbbu ca diwaanu Fatick mu ñu xamal la ñu démb Fatick nag tàngoon na jër réew mi Quotidien daal di koy feelu na dëkku Macky Sall bi démb nag mel na ne tulleek male ndax ak pëccëxoo ñi nga xam ne ñooy Jakarta maan yi ñoom nag ñoo doon defante ak ñi nga xamante ni maanaam ñooy takk der yi journal bi mu ñu xamal la ñu am na si kenn koo xamante ni sax nee nañu policiers yi ñoom seen bopp ñoo ko daal di rey xale boobee nag Yoosi Trou Lamine tey jii danañu ko andi Ndakaaru ci ap ab si ay mbokkam nag ñoom nee nañu mbir mi ñu ko bàyyi benn yoon mu sedd démb fatik seddul benn yoon Vox Populi mu ñu xamal nañu xale yi ñoo génn ci mbedd yi tal ay pneu dëkk ba mel ni tulleeg male yéen kaay gi di sunu lamb mu ñu xamal ñu lamb ji fan yi ñu génn meloon na ni tulleeg male diggante Alioune Seye 2 ak ñàkk jariñu violence fitna ju rëy amoon fa waa CNG ñoom nag daan nañuy jël ay daan yu méttee métti tekk ci mbër mii di ñàkk jariñu ak caaroy mbool looloo daat nañ leen di aj lu toll ci benn ci ay at yéen a kaay gi délibération ñu daal di koy jeexale ak moom ci mbir mu doy waara doy waara ci centre formation Dakar Sacré-Cœur benn waay boo xamante ni daal sa centre ba la nekk bu tudd Olivier Sylvain moom nag ndeke moo du tëddee xale yu ndaw ya xale yu ndaw ya nga xam ne daal ñoo ñëwoon te centre formation Dakar Sacré-Cœur di jàng football Olivier Sylvain moo leen doon tëddee moom nag moo nekk responsable cellule performance maanaam ñenn ci ay xale da leen doon yóbbu këram di leen wax naan dama leen di defal massage wa nag di leen di tëddee xale yooyu ay xale lañ seeni at weesuwul fukki at ak ñett jàpp fukki at ak juróoma moom Olivier Sylvain Libération nee na daat ñi koy teg loxo ci jëf ju ñaaw ji nga xam ne moom la doon jëf